bon cadre yi moment mooy d'abord sant euh, Sénégal ba nous organiser élection yu mel ni dal euh, surtout si vers gu sell gi di weeru koor euh, loolu nag euh, ndam ju la pour démocratie donte ñun PDS non ñu ko euh, d'accord ñu si processus bi nu mu demee waaye xam ngeen PDS parti bu respecter république la parti bu am expérience si opposition ak nous nous ñuy doxalee démocratie war euh, te il a été constant dès le début waxoon na ko par A ou B ces élections je vais y participer te loolu nag la ñu def nii nous tax tey euh, ñu jox suñu euh, à toute la démocratie sénégalaise à toutes les populations ñu xam ñun fa ñuy jëm di voter te loolu yaakaar naa ni tey au soir à 18 heures ñi nous xam tendance yi fan la jëm ndax PDS c'est un grand parti parti tamit bu ñuy soutenir c'est aussi un très grand parti ben message à l'endroit des populations également voilà. bon message bi mooy message de paix. Euh, tu sais ñun yàgg nañu def fi politique Ross Béthio euh, kenn xamewul violence politique euh, surtout année yu mujjee rek la am quelques escarmouches waaye boo xoolee ci biir ñun ñëpp benn lañu. ah te tamit ñu ngànk politique bi yëpp c'est des jeunes c'est des gens de même génération boo xoolee maag Faly maag Pape Diallo maag ñett ñu ñoo bokk même génération donc il euh, y a rien à dire moo tax lépp lu ci am rek nañu gën euh, bon ay dérapage do am ah comme keroog euh, du ñak comme kérok nu ñu agressé man sama euh, sama caravane donc mais là je pense que ñun ñëpp buñ ci taxawé taxawee Fally taxaw ci waxtan ak militant man ma taxaw ci tamit waxtan sama militant keneen def non keneen def non je pense que politique bi Ross Béthio def politique bu gën parce que fi walu ñun ñoo bokk lépp ñoo bokk lépp c'est la même famille donc je trouve que mën nañu gën a apaiser climat bi donc j'appelle et au niveau aussi en tant que posture de coordonnateur départemental en même temps secrétaire général de la fédération départementale de Dagana jotna naa woo c'est secrétaire général de fi 11 onze communes Nous ñoom ñëpp vraiment le vote se déroule très bien à leur niveau il y a une très bonne participation donc loolu la ñu jàpp ni war na Sénégal